الحمد للحق المبين waa kër xaadim cargo import export di yëngu nag si lépp lu jëm si wàllum fret moo xam bépp bagage boo xamante ni yaa ngi nekk Sénégal Afrique Europe Amérique partout dans le monde yow sama mbokk foo mën ni nekk moo xam da nga bëgg bagage bu ñëw fi li nga xamante ni moo di Europe wala Sénégal di leen fàttali ne mbokk yi la daal dañu koy di DPD di TNT ak voie normale express yow mi la nga xamante ni da nga nekk Europe bëgg a jot sa bagage si lu gaaw jokkoo la ñi gaaw bokki taamu leen gaaw express bi la nga xamante ni moo leen waa kër xaadim cargo di proposé li mu si gën a neex nag mooy waa kër xaadim yemuñu foofule dañuy def li nga xamante ni moo di groupage conteneur yow sama bokk yow mi nga xamante ni da nga ñëwoon file jënd sa bagage nag am jafe-jafe ñu yóbbu ko gaawal contacté ñi la nga xamante ni ñoo di waa kër xaadim cargo ñu dugalal la ko file nga xamante ni moo di si conteneur bile te doo si am benn jafe-jafe wala ñu fredal la ko te doo si am benn jafe-jafe

0090 545 353 78 02 mbokk nee naa leen daal waa kër xaadim cargo daal képp ku fi egg si danañ la jàppale si anam bu mucc ayib ak waa kër xaadim cargo daal yëpp ay bëgg ànd ak mbégte lool waaye. la